Fanta Samira Coulibaly ñu gën ko xam ci turu Samira te muy wuyoo ci turu ana ci série bi di Mœurs te muy daw ci télévision Futurs Médias TFM moom nekk na officiellement madame Guèye ginnaaw bi mu divorcé ak Yakham mbay directeur quotidien national Le Soleil dëgg la wala du dëgg nag lu mu ci mën di doon John ak ana ñoom siwal nañ seen mariage ci réseau sociale bi di Instagram bu ñenn ci internet yi jàppee ni nag boobu les mariage dëgg la ba leen di félicité sax ci commentaire yi ni rek tournage su série la waaye li ci xaw a jaaxal nit ñi rek mooy kii di Samira ci vidéo bi mu ngi ciy wax naan je suis officiellement madame Guèye maanaam nekk naa madame Guèye góor ñu bëri yàgg daw ci ginnaawam ndax taaram ak teewam bu rafet bi dañu man mën ko méngaleeg yamb bu fees dell ak lem actrice bi nekk ci série bi brigade de mœurs la brigade des femmes nekk ab production maison de production bi di Even Prod lu ëpp ci askanu Sénégal ñi ngi koy seetaan di ko inspecteur ci boobu boobule série déclaré na flamam ki nga xamante ni moo di Anna mi nekk chef de la brigade des femmes ci bile série ñaari fan rek ginnaaw diffusion épisode boobu ci la ñaari acteur yi diffusé photo yi ak vidéo yi dat yi sol tenue de mariage d'ailleurs Samira Coulibaly nag sax dafa neexul bañ daanaka góor gu nekk bëgg na koo am ci wetam ndax jekk gi mu jekk maanaam ab perle rare la wara sax ab oiseau rare Samira nag nekk na jigéen boo xamante ni dafa yàgg bëgg wàllum animation looloo tax sax muy suivre passion ci télévision Sen TV en tant que animatrice taaram ak formam yu jekk macha allah tax na ba ku ko romb ci petit écran bi doo changé lenn rek lañ koy wax moo di Samira wala sax Anna respect